bismillahi irrahmani irrahim hamdan li rabbil alamin wassalaamaani ala alhaadi alamin nabiyina muhammadin almakin wa ala wa sahabatihi ajmain mbokk yi tey di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru safar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak yaar di fukki fan ak ñett ci weeru octobre 2020 tombeek talaata seen ndongali Alioune Badara Ndiaye ci topp gi mu baaxoo topp xasiday Sëriñ Tuubaa yi di ko jéem a leeral ci kem kàttanam jële ko ci làkku arab di ko yóbbu ci làkk wolof dellusiwaat na ci ndimbalal sunu boroom subhaanahu wa taala ak kàttanam ñu fas yéene waxtaane xasida gi nga xam ne xasida la gu gàtt ci ay baat waaye gudd lool ci ay maana nga ne buñ ko toppoon dana yaatu lool muy xasida gunu miin lool bokk ci xasida yu siiw yi ñu koy wax xasida ak nafaani xasida la gu gàtt ci ay baat ndax ñetti bayit rekk la nafaani man lam yakun bi waladi wala bi walidin fa taaba xoladi ala wulida xayra waladi wa xayra walidin bi xayri baladi bi alihi wa saxbihi walxummadi salaatu dil arshi l azimi samadi waaye ak baatam yu gàtt yi yëpp sëriñ tuuba ay waxam foo ko fekk day fees dell ak maana ci biir xasida gi ci tënk rek am na ay tomb yuñ ci mën a jàpp tomb bu njëkk bi mooy sant yàlla ginnaaw bu la yàlla defalee ay xéewal nga xam moom farata la saa borom ne wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis loolu mooy tomb bi njëkk a jàng ci xasida gi tombu ñaareel bi mooy tawxiid xasida gi tudd na ci suñ boroom tuddal ko ñaari melokaan melokaan yoo xam ne moo ko wuutale ak mbindeef ma ne loolu yàlla dong moo ko am ku dul yàlla amoo ñetteel bi mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it ci ñaari ñaari melo ñaari melo mu tagg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañ ci ñëw mu ñetteel bi nag mu tëje ko ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ak ay ñoñam ak ay saxaabaam kon gis nga ni mu gudde ci ay maana fii la tàmbalee sëriñ bi ne bismillahi irrahmani wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama taslima tàmbalee ci turu yàlla julli ci ngën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ni ko alquran santaane ca suratul ahsaab ci inna allaha wa malaikatahu mu ne nafaani jariñ na ma man yàlla mi nga xam ne lam yëkkun mësta nekk te du nekk mukk bi wala din di doomi kenn wala bi walidin du caaginu ci waajur du caaginu di nekk waajuru kenn wala kenn di nekk waajuram fa tooba kon nag dal na xaladi samam xel xaladi sama xol wala xaladi samak béel samak sax saa borom subhanahu mi nga xam ne bokk na ci li ko wóotaleeg mbindeef yi mooy moom ci boppam nekkul doomi kenn waaye moom it nekkul waajuru kenn loolu mooy maanaam lam yalid walam yulad kam waxoon ca ca suuratul ixlaas lii nag ku dul yàlla muccoo ci ku yàlla jur nga wala ñu jur la bayuma dara lépp ku yàlla rek am nga benn benn ci ñaar yi muccoo ci benn yow sa bopp nga jur doom te kone xam ne jur doom mbirum mbindeef la ak doye di am na ci ndax na def ba am doom xam nañ ko wala boog yow ñu jur la yow mënoo cee mucc buñ ne ñu jur la nag mën naa am nga ne waa malaaka yi kenn juru leen wala garab yi wala nangam su boobaa dañ naan la ñooñu sos gi ñu leen sos mooy taxaw taxawaayu dañ leen a jur maanaam dañ leen amal benn yow nga am lu soqikoo ci yow wala yow nga soqikoo ci dara ku dul yàlla am nga foo soqi ko suñ boroom moom amul dara lu bàyyi ko ci moom ni ko nasaraani di wax na ne Isa doomi yàlla la loolu lañ wax waaye suñ borom tëkku na leen la in lam yantahu amma yaquluun bu fekkee arrêté wuñ la ñuy wax suñ borom neen la yamasanna allasina kafaru lam ca teg gis nga mooy mbugalum suñu borom dana leen laal kon suñ boroom mooy ki nga xamee ne moom cundum la amul dara dagg ci moom nekk nee ci xeeti mbindeef yi suñ borom it amul dara lum bàyyi koo kenn mucc ci lool mu tagg suñ borom ci ñaari sifa yooyu nga xam ne subhaanahu wa taala moo koy jagoo laysa ka mislihi shay'un kon day daal di ñëw suñ borom moom yi nag laa wax ne defal na ma ay njariñ njariñ yooyu maa ngi koy reconnaître di ko def i'tiraaf di ko tudd ndax kat suñ borom defalee lu baax defalee tawfiix da nga koy tudd nekkul rëy rëylu nekkul feeñal nangam déedéet waaye mooy tudd rek nga neelu suñ borom yim la defal ndax mu dolli ko nee na man nag sama xel kon dal na euh, sama béel sama sax sama lépp dal na teey na am naa yaqiin mu jàll ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne xalal la si alal lazi yàlla nekk ca yonante ba nga xamee ne walida jurees na ko xayra wala di muy ngën ki doom wa xayra waalidin tey ngën gi waajur bi xayra baladi ci ngën gi dëkk ginnaaw ba maa ngi julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wa wala boog maa ngi ñaanal yonantu bi sallallahu alayhi wa mi nga xamee ne mboolem kuñ jur moo la mboolem ku jur gën mboolem koo xam ne doom nga yonantu bi sallallahu alayhi wa doom yëpp moo ci gën waajur yëpp moo ci gën bokk na ci liy firndeel lii mooy ak njabootam ay soxnaam saydatuna aïsatu na fatima ak mboolem ay saxaaba yi doon dund ak moom ba ci yéefar yi nañ ko nim rafete woon ak sàmm ci ak njabootam ak nim leen yërëme woon waajur woo xam ne mësta gëdd kenn waajur woo xam du xas kenn du móolu kenn du jéppi kenn doo ko taajal mukk aw ñam mu di ko camu ñam daa saf xorom wala daa saf suukar wala daa tàng wala daa sedd déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkoon na ay jikkoom yi gën a yéeme mooy dawut def lool su bëggee day jëfandiku rek lekk su bëggul lay bàyyi waaye du xas ñam bi du xas ka doon toog du def dara loolu nga xam ne noonu góor ñi tàmm nañ ko lool ndeysaan la jigéen ji sonn lool dëgg la mu xorom lu ëpp wala nangam nga gëdd ko sa ñamu tàng wi sa ñamu nangam bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam def loolu sayyidatna Aïsa du neenu nee na gisuñu benn parent d'élève benn parent euh, de famille bu gën yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sax waxal na ko boppam nee na ki gën ci yéen mooy ki gën ci ak njabootam te man maa gën ci sama njaboot kon mooy wa xayra walidi yàlla wàcce woon ko ci ngën gi dëkk muy màkkatal mukarrama salla alayka allahu ya alama alhuda nga kon tàgg na yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci ñaari melo doom yëpp moo ci gën waajur yëpp moo ci gën bi alihi ñaan googu mu ñaanal yonant bi mu ne bi alihi yàlla na sar ba jàllaale ci ay ñoñam muy waa këram fameem wa sahbihi ak ay saxaabaam wal xummadi ak way sant ya mboolem ñi nga xam ne dañuy sant yàlla ñaan ngam ñaan nag mooy lan muy salaatu dil arshi teeralu yàlla mi nga xam ne mooy borom aras al azim aras mi aji màgg assamadi yàlla mi kañu jëmale aajo ya ca moom maanaam bim ne alal lasi rek foofa la wax ji duggoon alal lasi walida salaatu dil arshi maa ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa teraanga ak xéewali suñu borom mi nga xam ne mooy borom aras mu tedd mi yàlla nekk ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama waaye yàlla nekk ci ñooñu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci ay saxaabaam nekk ci mboolem jullit yi nga xam ne ay santkat lañu aalu muhammad nag aalihi boroom xam-xam wax nañ ci ay wax waaye mën nañoo jàpp rek taxsis gi ko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam taxsis taxsis mooy ahlul kisa yonantu bi sallallahu alayhi wa bi yàlla wàccee innama yuridu llahu li yudhiba ankum li yudhiba ankum rijza ahlal bayt wa yutahhirakum tathira suñ boroom dafa dugal boppam ci am mbalaan dugal ci sayidna aliyu sayidatna fatima alxasan ak alxuseyn daal leen muur mbalaan mi ne suñ borom ñi ñooy sama ahlu ñi ñooy sama ñoñ daal jàng aaya bi ne benn soxnaam umu salama ne ko ah, waaw man dama cee bokkut man mi nga sa soxna laa mu ne ko déedéet yow yaa nga eh, yaa bokk ci sa waajur wu góor foofu nga bokk dëgg la nag maanaam mi léeg suñ borom jëfandikoo ci alxuraan baatub ahl te fekk ay soxna mais ay soxna ña nga ca biir waaye kii yonent bi moo ko tax siisal boppam ne ñii la kenn ko ndax ci laa bokk mu génne ko ci ci xadis bu wér a wér a kon gis nga xasida gaa ngi noonu ak baat yu gàtt yëpp ñetti bayit dong la waaye gis nga li ci nekk ci bàkk yàlla ak sant yàlla ci xéwal gi mu ko defal bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal yonent bi ak ay saxaabam ak ay waa këram allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad yàlla na nu yàlla nangul ndongole Alioune Badara Ndiaye Touba wassalaamu aleykum wa rahmatullah